corps bi donc fas yéene jubbanti lépp loo xamante ne rek redresser leen tegaat leen ci yoon parce que. Mhm. Euh, li fa nekk dafa grave. Mm-hmm. port boo xoolee corruption bi moo ëpp. Mm-hmm. ban malfaiteur yi ñoo ëpp. Mm-hmm. tey ñi nga xamante ne dañuy dugg créer benn link. ci ceeb beeg ci aspect bi ci drogue bi ci oto yi leneen ak leen dafa bari. te tey ñu ci biri ñu ci biti duñu xam donc link la boo xamante ne tey mën nga fa. dugg réseau waaw nga fa dugg tey jii bu ñu la bëggee pëtaxal dañ lay pëtaxal. te amaana te yow yaa fay nekk seer bi mais ñoom en personne ñoom ñoo ciy bénéficier ñoom ñoo ciy euh, génn. donc mu nekk loo xamante ne rek ak le ministre de la justice man en en taxaw taxaw ci parce que nag li ñuy salfaañee dafa bari yoon ah. te aussi li ma wax rek xam naa ni moom euh, moom ministre bi dinañ ko dinañ ko ñaan mu wax son excellence rek pour ñu xool benn espace bu yaatu xam naa ne jam ñaajo mi ngi commencé fees mhm. ñu xool espace bu yaatu pour ñu tabaxaat beneen kaso mhm. waaw parce que 100 mètres mënatul camp pénal aussi. fees na fees na tënkee ci feneen ak feneen même chose mais nañ tabaxaat beneen kaso. Mhm. parce que ñoom liñ fi nar a toog nii non sàcc yi ñu nar a jàpp dina bari torop. dina bari te paquetage bi dafa métti son métti. Ah, yàlla baax na comme nee nañ réformé nañ. bul fàtte ne réformé prison yi xay na loolu bokk na ci ay extension xëy na yuñ def. ngir mhm. euh, ñeneen ñi dafa war a sax jug. 100 mm. mètres fii du place am. dëgg la waaw 100 mètres ba waxee ne day jug ci jamonoy Ablaye Wade boobu bi ñuy gëm loo ni jam ñaajo lañ koy yóbbu boobu euh, Radisson jam ñaajo amul euh, mm. tey euh, building yi nekk jam ñaajo dara amu ci boobu lañ koy wax loolu yàgg ah, des na espace sax foofu waaw des na des na espace fa tuuti ñu war a def kaso boo xamante ne mm. comme film ba ma doon seetaan daal dañ koy yokkaat dina ma neex trop <laughs> ma rey waaye en tout cas prison bi rek nga <laughs> bu lu ma neex la ñu ñëw seen station yi yàllaay kese wala jigéen ñi kese moom daan nañ ko sama xarit bi man de démb si guddi laa koy moom moom man kañ la commencé sax génn si wérum ñaan bay dem si wàllum ay visa ak ay utal nit bañ koy diñ ay escroquerie te police la xam naa si dara yàllaay kese xarit la de xam moom mu nekk si naqar ak lu mu mën ci am Euh, euh, da ngay wax li nga xam si moom. Mhm. sama gaay la man ak moom. je peux dire que man maa ko lancé. Mhm. Moustapha Dramé. Mhm. ma koy lancé. je ñu rappelle suñu premier tournage amuñu sax fu ñuy defee <laughs> émission bi maag moom ñuy dox di dox di dox am fu mu defee émission bi sérieusement ñëwoon na sax Feeling Dakar def fi def fi def fi benn benn émission mais xam nga tey affaire u Mara dafa graaw maane xam luy wax ji sénégalais pour mu doylu problème la mm. tey jii da ngay am tur Moustapha Dramé soo xoolee eh, si nguuru yi lancé na boppam. Mhm. boobu naan bu Ousmane Sonko nekkee président <gasps> nañ ma woowee golo ak genre yooyu. Mhm. nit ñi di reetaan. mu defoon ci jéego boo xamante ne à travers communication moom moo def promotion boppam. moom da lay mhm. woo nga tourné ko émission Mara boo si paree pare nga ci. lu ko saf lay wax. pare na ci nga dem mu dem. Mhm. mais bu ñu demee nag tey ba di leen dégg ci affaire visa. xel yëpp day mhm. demaat ci Lac de Guiers numéro 2. Mhm. xel yëpp day demaat ci ñi nga xamante ne tey kat ah dañuy bëgg yëngu ci wàllum visa. te gis nga maane yëngu ci wàllum visa. Mm, yàq day freiner carrière. bien sûr qu'on se dise la vérité day freiner sa carrière. Euh, man boog bi ma ko xamee ba léegi musuma dégg ñu ne Moustapha Dramé tëj nañ ko ndax am na problème ak benn client mu affaire bu seet ak yooyu. Mhm. donc man daf ma doon su ma ko tournelee rek pare ñu déggante ka fooree mu sant ma dara ma defal ko ko jeex na. Mhm. mais tey bu demee ne kat parce que man kat ci wàllu visa bi man démb bi ma ko liiree article bi via Seneweb moo ko fësal ci laa ko yëg ma ne ah. kon da yëngu ci lii mais xam nga liñ naan nit ki mën nga ko xam nit te doo ko xam ci beneen aspect mu mhm. nekk loo xamante ne aussi tamit comme li ñuy wax kaso kenn yéenewu ko nit mais ban link la Moustapha Dramé am ba dugg ci coowal visa parce que ah, man parce que man dama naan Moustapha Dramé kese duggul ci biirum visa man je connais bien Dramé mm. Moustapha Dramé kese duggul ci coowal visa li wax dama ko xam c'est que nag mënoo wax lépp ci plateau mais ak ni ma ko xamee soit dafa am ñu mu si liggéeyal dafa am ñu ko tegal ay proposition parce que man Dramé bi moo ko xamee ba léegi gëw ma ne Dramé génn gum na Sénégal. Hmm. gëmuma ko. Hmm. Dramé Sine Saalum Saalum gii la dëkk. Hmm. waaw Saalum la dëkk de xanaa peut-être maa baal reetaan xanaa kat mu am coobare boppam dem voyage mais wàllum visa maane foo ko déggee du benn nit. foo ko déggee groupe la. ndax da li ko gën a sonaloon. waaja dafa daw comme ko sikk lool. waaw ah, mais échelle la. waaw échelle la mais nag moom lu tax ñu tudd ko si ah. c'est-à-dire jigéen ñi kese nag yërëm naa loolu waaye bu gënee non non buñ ko si tuddee c'est-à-dire que tey jii amaana moom moo ci gënoon fës léegi nag li tax ñi ko ciy téye. moom dina wax. Mm. enquête bi ñan la ko sikkaloon kañ la ci commencé parce que tam doon na tamit euh, euh, business boo xamante ne c'est rentable. Mm. dafa gaaw ci xaalis. Mm. dafa gaaw ci tukki. link la. xam nga tey mara yi fi nekkoon yëpp je peux dire que en 2019 parce que 2019 la mara yi amoon ampleur 2019 la mara yi amoon buzz. mara yi ñu fiy gis nii yëpp 2019 lañ defoon buzz. 2019. 2019 lañ doon def buzz ci li nga xamante ne tey moom moo di si si si internet bi parce que euh, ñoom ñëpp période boobu ñu ngi doon doxal boo xoolee ñoom ñëpp ku ci bëggoon sa vidéo dox sax faw nga def ci miniature bi Ousmane Sonko. tey foog nga am nooy def tey jii nii kat tey ba Ousmane Sonko kat. nit ñi ko tey foog nga wax ci Ousmane Sonko tey pour nit ñi xam la. tey lu ñuy gën a dem yi di off lu ñuy gën a dem ñuy off ba ñenn ñi sax jaaree fa am seen chaîne YouTube bu bopp. am ñoo xam ne du ñu waxee fenn wala dañuy xool benn chaîne bi waxee fa nga xamee leen ci ñaan ak seet ñii naan des fois mun nañ ñii fois ñii naan des fois mën am na ay coxeur sax nag ñoo xamante ne xamuñu dara coxeur yee gis ku dagg tikke gis naa fi mara bu dagg tikke xëy un bonjour doon mara fan la mujjee kaso waaw kaso la mujjee bu baax ak jaaru axixa yi liñ ciy liñ ciy li jaaru axixa yi liñ ciy trompé ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll man dangay tourné nit émission après ñu woo la di la laaj mais après yow sa yoon nekku si parce que si liggéey ngay def. liggéey ngay def mais Dramé dugg ci coowal visa man damay laaj Dramé lan moo ko xiir ba mu dugg. xam naa ne moom nit nit bu am fit la moom dama moom moom Serigne Moustapha Dramé am na fit. sañ na wax ragalul ay waxam et je pense que bu jàkkaarloo. enquêteur yi vraiment lii. non bojj bu ñu bojj la wala bu ñu boxoon la émission. nga andi bi ak fooy mu ne la loo koy doyee. man kay xam naa si dara. léegi nga ne ko lii mu a la dee bindal ma samay numéro numéro nga koy bindal mu ne man Aïssatou na caméra tàq ñu ngi la ko Aïssatou na man laaj ma ma tontu. kese te loo ko laaj mu tontu dëgg la am na borom xam-xam mais man li tax dugg ci lii man jaaxal na ma te bu génnee man je ferai ak moom laaj ko te man xam naa ne bu ma ko laajee moom dina ma wax. Mhm. waaw peut-être nag xam naa nag soit dañ koo jaay. Mhm. wala ñu wanteer ko wala ñu yoole ko. mën na cee nekk parce que itam am na tur ci réew mi. en tout cas lu ci lu ci doon moom mooy euh, bu si laalee. Mhm. lépp dina leb bu fekkee laale si tamit lépp dina mais en tout cas euh, euh, nekkul ne amul loo xamante ne nemmeeku. nañ ko ma topp ko arrêté donc naa la ko bàyyeel. mais comme jumaa léegi mu jot. Mhm. léegi ñu on a fait presque une heure d' émission. dañuy dem ci arrestation bi nga xamante ne moom mooy douanier moom mooy transitaire Badou Badou nga xamante ne moom ràññee nañ ko. bu baax si wàllum transit muy faral di liggéey liggéey bi am solo liggéeyal ay hommes d'état liggéeyal euh, Sénégal liggéeyal ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, au niveau international euh, ñi nga xamante ne régime bu bees bi politiciens yu bëri moom mooy génne seen oto di dugal seen oto seen yenn matériel yi nga xamante ne dañ koy jéggaan di ko indi moom mooy liggéey ñoom moom na daal dañ koy teg loxo ni gi démb si guddi mu mel ne ne rek arrestation yaa ngi ko ne di mooy faat ay xam nga am nga euh, nu mu tudd maane ni ñu daan dugalee ci oto ni ñu daan dugalee oto ci réew mi. Mhm. ak tey say bien loo soxla c'était pas légal. c'était mhm. illégal. Mhm. Ah, tey jii nii amaana mën nañ sàcc oto bi. ñu andi ko. scooter bi même chose leneen ak leneen même chose boobaa tey jii yow yaay chef de bi nga xamante ne yaay dugal. mais loolu day dañ. loolu day dañ day dañ si régime bi maane. rupture day dañ day dañ parce que itam foofu dañ. il faut que ça cesse parce que tey jii boobaa xam lu ñuy dundaat. kumba am ndey ak kumba amul ndey moom la ñuy dundaat mhm. et man li may wax saa su nekk bu ñu amee régime bu bees deetawaay ñu fas yéene tabb assemblée bu bees damay wax bërki démb assemblée bu mûr lañ soxla mhm. soxla wu ñu ay assemblée boo xamante ne ay booyu Pastef ñoo fay nekk non c'est pas ça parce que boobaa dinañ ne carrément ñoo xeex xeex bi ñoo gañe gañe gi ñun ñooy fallu bu ñu ko mhm. defee noonu rek ñenn ñi dañ ciy gis seen bopp mais képp koo xam ne da nekk ci wàllum détournement parce que boo waxee transit ñëpp xam nañ seen liggéey mhm. transitaire ñëpp xam nañ seen liggéey mhm. au début da gis kenn koo xam ne dana bëgg a nekk transitaire mais après boo demee ba ci biir parce que tam transitaire li ci ëpp